ndax li ma ci wax lu ma saa boroom war la ma gis ko ci mbir mi nga xam ne moom la Ousmane Sonko digle te si maanaam coono ay bool ak palaat ak mel noonu ak mboolu mel ni biir wi dañ ci am ay jàngat yoo xam ne gis nañ ko suñu borom wan ñu ko ñu tegtaloo ko tamit ci suñu xam-xam mu bi nga xam ne moom baaxoo def loolu Ousmane Sonko digle sëñ maam na Euh, donte ñariñ nag mu ngi ci ndax manifestaaru manifestation la ba tey ci xeetu système waaye mbir la moo xam dafa rax mystique sëñ maam Thierno dafa rax mystique. dafa mystique ay bool ak yi xeetu armignon di ko faral di tëggee dafa nekk loo xam ne day woo ay seytaane waaw day woo ay seytaane te day tax seytaane yi buñ jugee. man nañoo taal Sénégal man nañoo indi ay jafe-jafe ci réew mi. maanaam mën naa ci président Macky déedéet mën na cee bañ a ndax yëg nga ne bool yi bu ko tëggee na nga dat li ba weer képp ko woon rab sarab dana yëngu dana jug attaqué la ndax bool dafa bokk ci signe yi woo jinne ak seytaane yéefari nag lay woo te Dakar gi ñu ko bëgg a defee. yi ci ñoom lay yëkkati. seytaane ci la bokk seytaane dafa am benn xeetu bu koy misigam misigam musique musique yi muy wuyu di ci ëpp mooy xeetu sonnerie sonnerie formation yi lay doon ak seetu ak xeetu palaat yi fëgg da ko faral di woo. moo yi ci benn roq. waaw doo koy ñett formation yooyu formation yi suñu bëggee woote am na benn sonnerie bi ni bës mu ne kiling kiling kiling kiling seen jinne yi bon ci leen woo ñëwaale. te lu gëna déwar moy Dakar wu monument de renaissance boobu la fa nek fofu ay pële jiné Dakar gi nga ko bëgg woté woote tax lu bari bari Sénégal dañ ko dafa ci wala lu bari bëri ci wàllu mystique dañ ci xolé tawadi yi dana gën a bëri yi dana gëna bari bëri te jël yi xale xale jël yi ni jël xam nga xale jël yi ni jël walu mystique la walu sacrifice la xërëm ndax Sénégal xërëm dafay bari monument de renaissance bi xërëm liko ko lal ci la bok tey Dakar amul kenn ko fa mëna dem yor turu yàlla te jakaro guiné yéféri mo do sérigne bari am tuyal du ñak Dakar duñ fa yak ndax xërem sa fa ne te Sonko li def ni day yeeseete ne yooyu donte da ci djublu pour nakaru manifestation wa yëmu ci waye waye ay bol timit day toj ko day toj galaj ngor day wàcca ngor day toj galaj buur xéti bolé ñi tégg ni day toj galaj buur man na yak sax fa Pastef ni mi yak galaj maksal ndax ni bu ñu xé bu ñew dañuy mer bu te woo tawee la tax ñu woo leen gisuñu ko day dal ci kaw nit ñi dal ci réew mi kan nan bàyyi xel du du du du maanaam du du maanaam nekk lu tubaab yi def rek ñu ko déedéet réew mi dafa am ay aada am ay réalité suñu maam ci am am yeneen jinne yaa ngi dégg Cheikh Moussa Diagne wax réew mi nan ko sànq nan ko sànq ndox wala sànq ko deret te lii suñ koo def nii donte lu baax la waa mën na indi ay jafe-jafe yu bëree bëri ndax dalañu ci ko am ndax bunte xalaat yi ñu ko def. ndax gis na ne mu war a manifestation ñu téye ko ci këram loolu jaaduwul loolu Macky Sall duñ ci ànd ak moom ndax soo xoolee loi réew moo ànd nga am loolu naqari nga def manifestation waaye téye guñ ko téye ba téye ko sax ci ñàkk julli ajuma loolu ànd ñu ci ak Macky kon Macky faaw mu ànd ak moom it ngorom te xam ne Senghor nga fi Senghor ko fi jiitu ak ab lay Wade ak Abdou juf te moom ëllëg dafay jóge kon na bàyyi xel loolu baax baax baax. waaye sëñ maam Thierno lii Sonko def nii mbégtee ngi fi de waaye loraan gi bëri la àndal te boo xoolee sëñ maam Thierno fi réew mi toll ñaata xale la ñuy jël xale bu jël du feeñ loolu xërëm rek la te loolu élection yi bu dee ñëw moo ko waral réew mi ñaan lootuñ ci alxuraan ci sama classe gi ñaan tuddal xërëm rek la ñuy def. ok léegi. Hmm. maanaam dañ dañu wax mën na toj ay gàllaaj maanaam ñi ñaan loo xëy ci ay mbir. suul koo xeeg yoon ak yenn sëy yi nga xam ne ba takkoo est-ce que yi buñ sayaatiin surtout Dakar xam nga Dakar amul kaaraange la ca gën néew mooy danañ toj gàllaaj ji bari te oto yi bari maa def accident accident yi day gën a yokk day day gën a bari sëy day gën a tas ndax sayaatiin yi leen yëngal gàllaaju nguur Macky Sall sax xañ nañ ci mu toj yi nga xam ne xeetu xërëm la ak xeetu ñabar ba ci yu bëree bëri man sayaatiin bu ñu gënee mën nañ ko yàq te lii ma la wax nii li ma wér la lu ma xamal la lu ma wax la muy lu wér a wér a wér nit du mer rek jug wax ci dara déedéet da ko war a seetaat ndax àdduna dafa am baatin am saayir yàlla mooy saayir mooy mooy lu feeñ ba dafa nëbb ci ay mbiram yow xeetu mystique la comme ko xamul mënoo koo xam loolu moo tax bàyyi xel. te manifestation li ñu gën a xam baaxoo Sénégal donte amoon na trop amoon amoon na 1968 li ñu xamoon ci manifestation mooy jug ma ñaxtu donte Macky Sall ñu ko teel waaye ñu xoolaat beneen système waaye système bii baaxul si mu tëgg palaam ndax loraa nga leen réew mi te li ma wax mi ngi ci kanam di ñëw kenn mënu ko dindi waaw te Dakar lay ñëkke te Dakar la fa nekk ci ay jafe-jafe xeetu rey xale yi xeetu rey nit ñi rek deen sëkk ak xeetu accident yi kon suñu ci bëggee yokkal dara ci yeneen jinne yi nii woo loolu jafe dafa am suñu maam coon dafa am xeetu musique yi woo jinne tëgg ay pratique bool ci la bokk te àllarba sa bisu àllarba la ko woote te àllarba dafa bokk ci bis yi gën a bon bisu jinde yi àllarba ci la bokk moo tax ñu àllarba kenn ci tukki kenn di ci tàggoo kenn di ci sangu kan bis boobu dafa nekk bis boo xam ne dafa dafa am na àllarba gumu mujj goo xam ne mooy àllarba kere sax balaa yi bëri ci lay wàcc te su ma jumut àllarba gi mooy mooy àllarba gumu mujj ci weer wi wala bu ci topp te moo mujj ci an mi ndax ñu ngi ci weer wolof ci weeru mujj bi war a dugg ci weeru julli maram mën naan jafe-jafe yi sax mën naa dama naqaral weeru bi weeru weeru atu atum weeru mu war a dugg muy kon nan bàyyi mën na ko laal bari ndax siyaati dem ñu ko seeba génn lu bari bari mën na mën naa loo raañ moo tax réew mi ci mën a jikko amul kaara yaa ngi ci dansé seeba ku njëkkee ci marché bi kenn ku wuti kaara nga siyaati ndax jafe-jafe yi bari mën naa dal doom population bi wala askan wi loolu may ndimbal moo tax jeunes yi jeunes yi sax xale yi buñ paree jeunes yi rek ñooy marché def loolu te buñ paree kon nan góorgóorlu jiwaat wuti kaaraange wuti muslaay te jéem a taxaw seen bopp ak labiré la goom doon mën a mënuñu ko ñàkk labiré ndax dañoo tudd bu gudd ñu wan ñu ko mënuñu koo ñàkk a wax mënuñu ko doonte Ousmane Sonko doon koo tooñ not ko néewal ko doole waaye système bi dañuy wax leneen loraanga te moom te moom boo xamoon ne liñ ci xam nii xam na ko ci du ko def ndax moom sàmm réew mi ko tax a jug ak dimbali population bi wala askan wi yaakaar ko ne ci gannaaw kon lépp loo xamante ne la ak loraange mën na caa topp ci wàllu askan wi man moo doon def waaye wàllu saa bi la def rek ak topp meram dëgg dëgg diggante am Macky Sall ndax bi weesu moom Macky Sall moo tooñ neexatu dëgg mooy dëgg moo ndax li Sonko war def ak Pastef dañ cee am droit war ko def kon loolu mooy dëgg dëgg bool yi mën naa dem ba xañ Sonko réew mi jigéen a ndaw mën naa xañ Sonko réew mi ci wàllu mystique man maa ko wax. li ci gën a ndaw laa mën naa xañ Sonko mystique ni muy wàccee Macky Sall toj gàllaajam noonu la mën a wàcc xañ Sonko réew mi Sonko dafa lu muy wut te lii wut daam noo koy wute diggal waa Pastef ñu bàyyi ci xel dama wax ngir yàlla wax ko ngir damaa Sonko ni mu bëgg réew mi noonu laa bëgg réew mi ndax man déem réew mi la waaye sama xam-xam laa mën a wane laa mën a wax lii dëgg laa mën a dimbale population bi ci laa wax ak ñoom waaw si nga si mooy guy ko jox sox Dakar kuy yi fa la sunguf si ku ko sangoo ku ko sangoo noonu boo am dana ñëw jéggul si la songo bu ko sangoo dana falu Macky Sall bu ko sangoo kenn mënu ko am troisième te ku ko sangoo alal kenn mënu la ko tee am ñi ni wax ku sangoo sunguf si ndax sunguf si guy guy jox soog daqaar la si maam Thierno mooy sunguf si te fi réew mi toll sunguf si ku ko amul lan nga sa bopp ki lijjanti kayit bu ko songoowee ki lijjanti kayit la wax su ko su coppee kayitam boole ko moom kenn mënu koo téem kayit donte Amérique la nekk ku bëgg visa su ko boo su ko boolee passeport am copier ko lakk ko bala ko sunguf si kenn mënu koo téem visa ku du yàlla ku bëgg alal bu ko songoowee toog cib sees songoo ko bala ko wur si xaalis kenn mënu koo téem alal te lu fekk caw day dañ te ku la liggéey ku la ku la liggéey ñëw ba caw wax la ko damaa liggéey ku liggéey mu këpp ci kawam ku la yéene jàmm génn sa kër ga ñaara bu may jaaroo milliard mas nga ko dégg ku ko takk am milliard waaye du ku ne du ku ne laa koy liggéeyal nag ndax milliard lay am bala ngaa dee am milliard ab jaaro waaw jaaro boobu nag ci pafta lan ngay liggéey su loo ko takkalee fii ba ñaareel ñetteel bu am milliard da nga ko téye wala li nga am xayma ci xaalis da nga am milliard maanaam milliard rek lay am waaye jaaro boobu nag du ku ne koy am ndax borom wërsëg moo ko mën a am ndax suñu rëx ndax àdduna fi ñu toll du ku ne ñëw borom boobu sëñ maam Dior la ma indoon jaaro boo xamante ne moom nga milliard waaye nag du ku ne laa koy liggéeyal de ndax li muy laaj dafa metti milliard matériel jaayab day réer loolu ak gisati foofu lay yem te doo ko amati ci àdduna benn yoon nga am ci àdduna kay mënu ko am ñaari yoon waaw ku weer li ma la wax ni ñëw takk jaaro bi ak ku mën a doon waaye nag du ma ko jox ku liggéey ku liggéey laa ko jox koo xam ne liggéey dara naan nga da ngay nekk ci dara ma defal la nga doog am dara lu ma ne xew daal mooy mars bi weesoo maam na koo xamante wutal ñett takk soo yu fukki dërëm soo yu fukki dërëm lii ma la wax ni ku ci yu yu yu mo xam délai ma nga génnoo ko def ko ci mus gu nga bàyyi ba timis nga sarax ko na marché bi 8h la tay nga bàyyi ba timis nga sangoko ko nga nga ar heure boo déglee vidéo bi rek man man ngoko def boo ko defee mën nga def. manam sarax bi fi ba alter bi di ñewat sarax bi day dox fi ba semaine ku ko def man nga muccu ci limane ma ñep man nga ci muccu waaye ci muus nga koy def sarax ko